kana me aman aman daw ni kan nit ko wala man aman daw lang Nah, vui. ama ndaw dama ne la ku toog dama la soxla jéggalu de bañ waaw man nag maa leen oolu woon pour ñu waxtaan waxtaan wi nag moo la si weer wi noo dugg mu la weeru koor la weer wa sell am na nag laa ko kër ndax bëgg na ma ama ndaw ma bëgg nag weeru koor wi ngir yàlla war a sóoli ku changé si te sa yi u takka nii ma bëgg u dem u lépp u dem u sangu ji ba u sell u sol yëre nit u nekk ak nit u dimbalin ma ndax man kilifa la ma si gox bii ama ma bëgg nag li ma la wax ku defal ma lool kër gi kenn dootu fi tuub Kendu do def nak sudul non, ken du fi lekati ken du fi naanati ñëpp dañaa or rek rawatina nak aw ba ma jógee foofu nag aw ci wa kay ma bëgg rek lu waxta ndax sol wi law sol ni wala jinn ci bité dem la liggéey ndax jekkul si wéru ko ma bëggon nak baa ka ma ne wala sol la yiw wa di ko dal di ko ñëw kër gi di ko tok walé dina ma ñu lool defal ma lool

motax tax daal ma owal oh, ni waxtan yaakaar na te nek di gëna nak nag li ma wax góor gi li nga fi wax yépp kenn mënu ko dind ndax it wéru koor mom kenn du ko booleeg lenn ah yaay booy déet tol kay mom ñu kenn weerante wu yow li nga def ci kër gi dama la ci gëreum parce que sama bàyyi nga mais tu es intelligent mon père tu es intelligent li tax ma bëgg la mooy dafa am foo ma féete mais avant tout caat mii laa bëgg bàyyi mu sànni kàddoom ba pare mu soog a yeggali parce que nag mooy caat caat waxal ak bàyyi ak yaay ak goro ak man nii sa mag ñu dégg ma wax dëgg yàlla balaa ma wax damay baalu àq ba pare parce que dañoo jëm ci weeru koor muy weer wu sel di ko njëkkee nag ci sama papa ji teg ci sama yaay ji nag maa ngi leen di baalu àq bu baax a baax rawatina nag sama mag ju góor ji waaye nag su ma weesoo yëpp damay wax ak grande dame bi yow li ngay wut ci suñu ëtt bi yaa ko xam yàlla na la ko suñu borom may. papa nag gis nga colin yi ngay wax ni mënta mañ a ñàkk ci xalé jigéen légui surtout man damay liggéey di xey di wacc yow xam nga ne man damay sol yéro olof mais bu soobee yalla bu féké na lool rek nga bëgg man dina la ko may mais tamit nak mënu sé ñak réalité euh car li nga wax jéxal na lepp père yow xam nga ne man je simulate dama am problème mi ree docteur Mbaye docteur Mbaye benn Mbaye Babacar comprimé yi moo ma ko jox ne ma man damaa am feebar boo xamante ne nii waruma toog dans 15 minutes te lekkuma maa naanuma ordonnance yaa ngi nii. naan aw ama ndaw xam naa la la ma laa xam man dama dul sa morom sa kilifa la bàyyi booy li nga wax yëpp dégg naa ko mais orque yi moom man je suis malade comme ni ma la wax rek je suis malade. ren dinaa man kay loolu rek dama xaar pap sama bàyyi nga sama dëkk la ay comprendre nag ah yaay booy bàyyi day comprendre nag bopp ba Ya, demal ci biir